بسم الله الرحمن الرحيم أوسنا رجيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي سنة صدري ويسلي أمري ونقد من ثاني يبقى خولي مبكي جولي جيم مبكي تالبي فنوانك أدنم لني باي خل سين تلفزيون توبا موند بي تي في لكلو أغراج خاص دون لاين توبا موند بي نيو نيو باخ دي لين زيارة دي جيل نيو اك زيار بي خليفة الإمام تاريخ تيمور دي شيخ محمد المنتقى مباكي di ko ñaam yàgg fi loolu te ak njëbo seelu xaddim gi yëpp mu mel ne tey ñoo ngi fii ci Touba France ci Paris comme ni nga xam ne rek noonu lañ ko baaxoo defee at mu nekk yàlla def ñu teewaat fi ji ci mille 2018 ci la 3 février fii ci Touba Paris ci bis bi nga xam ne waa ahlu jaalibatu maraaxib bi nekk Touba France yëpp ñu ngi koy ànd ak waa ahlu xasida bi ne si mbooleem Europe bi yëpp di ko taxawal muy bisu jaalibatu maraaxib ren nag suñ borom dogal muy juróomeelu yoon ñu koy def ci ndigalul sëñ sa Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou waaye ci ndigal tamit Cheikh Amadou Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba kon mu mel ne ñoo ngi fi ñëw ànd ak sëñ Abdoulaye Diop doon kenn ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci liggéey sëriñ Touba yi kon xam naa ginnaaw bu leen nuyoo rek ziar leen di leen xamal ne am nañ pas-pasu ànd ak yéen ci bis bi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo ànd ak yéen ci lépp loo xam mi fi xew rek ñu am pas-pasu andi leen ko ci seen télé bi nga xam mooy télévision Touba Monde bi TV ànd ko tamit ak ay plateau yoo xam ne danañ ko def dalal fi ay borom xam-xam ak ay jàngat xasida ci ñi rajas ak ñi nga xam ñooy kuréel loolu lépp am nañ yéene indi ko incha allahu taala xam naa bala ñuy gën a sori rek dañuy jox sëñ Ablaye Diop mu gën a yaatal rek li nga xam ne moom lañ am pas-pas def ko fi waaye tamit nuyu tamit ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci àddina bi yëpp sëñ Ablaye bisimilah. ça jërëjëf. aouzu billahi min acheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. sallallahu ala muhammadin wa radiyan xadimihi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi leen di nuyu ni leen siyaar waaye di jiital ci nuyu boobu rek xalifatul am li tayfatul muridiya di cheikh muntaxa moom cheikh mahamadul bachir ñaanoon ko fanu gudd ak wér gu yaram bam dund ba yéggale yéeneem ci ku tedd ki waaye ñaaneel jullit ñëpp ñaandi ci liggéey boobu te sëriñ bi nangul nu ko jërëjëf sëñ Mbàkke ñoo ngi lay ziar bu baax ci bis bu tedd bi nga xamni euh yakarna ni bokku na ci bis yi nga xamanteni ni yu ganjuru lañ ndax euh, bis bo xamni euh, dañ ko wote ngir dundal fa guddik euh dañ ko tudde non waaye bisub jaamu yalla la ndax euh, fo xamanteni ni jang alquran ak jang xasida la leen di dog daanaka weesut noddu gunu noddu muy waxtu julli ñu wara julli delluwaat ci lola ñi eh, kurel, ñi ngi kurel ñi durus ñi ngi durus ñi xeyna xawta fer iji ci lu harabia ñi nga yor sen kurus eh, loolu ak bernde ak eh, gis sa mbokum julit yaakar naa ne loola ku ko dëkkal feneen fu ci jaamu yalla sax da ci am loolu nak ci lan jóge nun Italie ñu invité ñu ci ñu ñew fi waaye bëggit lépp luñ fi luñ fi luñ ko fi luñ ko fi joxee rek ñu ànd ceeg jullit ñëpp jullit ñi nga xamante ne xëy na suñ borom defoon na am nañ gànt bu mënuñoo ñëw ñu mën a dunde ni nun niñ koy dundee ba tax na bëgguñu dara euh, raw ci luñ fi am rek ci jataay mm, ak ci kuréel ak ci waxtaan ñu mën koo dugal ci plateforme yi nga xamante ni daanaka mooy jumtukaay àdduna yi nit ñi mën cee jot ba ci bitti réew ba ci yeneeni gox waaye lépp rek xam nga boo ko boolee Touba monde bi la ndax euh, lépp rek ci biir ci biir monde bi la génn ko te monde bépp daanaka noonu dëkkale nañ ko Touba ndax dañuy faral di wax na noonu fun fanaanee jàng xasida buñ xëyee muy fu Touba rawatina fii nga xam ne mooy Paris te Paris taarix bi ci ne euh, ak euh, nan jàmmarloo woon ak sëriñ bi ñu ñëw fii tey ji di ko fi jàng yaakaar naa ne loolu barab yëpp yellu na fa rawatina bi ndax day dëggal waxam jooje mu waxoon ni inni uxaatibu nasara turra fii ardihim li maliki muxtara loolu yaakaar naa ni nun ñëpp mooy sunu devise taalibe Sëriñ Tuubaa bu tukki rek dem ci réewi nasaraan loolu nga war a yóbbaale sa xol maanaam buñ la xoolee rek gis jëmmi Sëriñ Tuubaa ci yow moo xam ci xam-xam moo xam ci yar moo xam ci doxalin moo xam leen ci jëflante loolu nag ay fànn la yu bari yoo xamante ni mën naa andi waxtaan yu bëree bëri waaye jamono ji ko xëy na bu ñu duggee ci yooyu beneen ak ak ay ay jotaay du ñàkk loolu parce que loolu ay aspect la yoo xam ne taalibe bu ne war naa mbubboo loolu ngir jëmmal sëñ bi nga xam ne moom la tudd di ko tuddoo waaw loolu daal mooy li nga xamante ni tax andi nañ fi tey ngir ñu war a yaatal euh, ci diaspora bi lépp loo xamante ni dañ ko fi jëlee ci diggante waxtaan ak mbokki jullit ak mbokki taalibe ak déglu xasida yi ak ak ak jotal li nga xamante daal mooy xasida yi Sëriñ Tuubaa euh, jaarale ko ci kuréelu Jaalibatul Maraax bi nga xamante ne sëñ Amsatu moom sëñ Sooy moo leen jox ndigal ñu invité ñu ci ñi nga xam ne ren jii maa ngi fàttaliku daaw bi ñuy ñëw doon nañ juróom-ñaar fukk ak juróom ren jii mat nañ maanaam ñaari téeméeri nit ñoo xam ne jóge nañ ci Lombardia eh, ak yeneen i gox yoo xam ni yeneen réew lu mel ni Suède ay Danemark ay Norvège eh, Espagne yooyu yëpp ñëw nañ waaye Lombardia rek daanaka li fi jóge mat nañ mat na ñaar téeméeri nit waaw loolu na kon eh, dugg na ci kàddu sëñ bi mu waxoon ni sama maanaam tey ju day gàccal sama démb waaw loolu daal mooy li nga xamante ni ci gàttal mënees na ko jot Sëñ Mbàkke akasa sëñ mu mel ne juñu nga lu am solo mu mel ne ni nga waxee rek bis bi daanaka dafay doon bisub sant ndax te sëriñ bi moom boo xoolee léppam ak sant la ndax eh, li koy firndeel rek bokk na ci bis bi nga xam ne mën nañ ne la wooteel boppam muy màggalu Tuuba daanaka boo ak sant la ndax lam ci wax leer na mooy cant gi ma war a sant si ma subhaana taala dafa matalewu ci man wala dama cee néew doole ma bëgg nag képp ku woon sama mbég sa mbég la rek nga ñëw sant la ma ci kon koo kon sant kon <laughs> te bu ñu xoolee sant dafa doon benn ponk ci lislaam wala benn aspect ci lislaam boo xam ni dafa am solo ndax bokk nañ li nga xam dañuy ku ko deful sax <laughs> mën naa dem ba jural la merum suñ borom wala yaasi billah waa kay tey ba tey li nga wax tamit bu ñu xoolee taarixu Paris euh, dafay am solo lool ci sëriñ bi ndax ndaxte euh, mel na ne euh, ñoom li sëñ Cheikh Sidé Baba di wax rek ci Minanul Miskiya wala ci téeram boobu yi Euh, waaw yaa ngi mel ne miske su ma jumul sax ci la ci Seexu Dabi Seexu waaw Seexu Dagana waaw waaw Mago bi mu wax naan Seex Sidi Baa bi mi seede Sëñ Tuubaa di ko wax ne ko yow kat bi la tubaab yi di yóbbu da ngaa mel ne benn tax boo xam ne oor lañ ca casque dañoo demee ngir toju la ngir ñu xam ne ci biir dafa mel ne ñoom ñii kon ñoom ñoo toju woon <laughs> tax boobee ngir ñu xam sëriñ bi bu fekkee mën nañ koo saraanoon ngir mu gën a leer euh, ba pare tamit bi tegu mooy euh, bu nu xoolee fii tamit dafa am tamit lu muy jëmmal ci àddina bi ci ay fànn yu bëree bëri yoo xam daanaka nekk di ko détaillé day xaw a néew kon bu murit yëpp amee benn pas-pas ñëw jëmal fi sëriñ bi awee ko ci li nga xam ne ci la wax ne mooy sama karaama euh, boo xam ne moo ma gën a yem ci li ma suñ boroom jox ndax li ma ne karaamatu xattu yët yi fii xidmatil mu ayat yi wakaan ba fi allahuma li karam yi waa kay ba tegun waxaan tamit euh, saa yu ma sëppee sama xalima iblis dafay daw waaw kon aras tamit di jaayu kon ñu tànn barab boo xam ne kon fa lañ koy defee ji kon loolu kon ak sant la waaye demel ni ko ak yëkkatile kon sëriñ bi mu mel kon dafay doon beneen ndooleen leen ci pay gi nga xam ne su suñu son a wa taala fayee na ko sëriñ bi kon daal mbokk yi xam naa ne kon dañ leen ni taxawani di fii ba ci kanam incha allah nga xam ne danañ am pas-pas ni nga ko waxee ak ni sëñ bi laay waxee euh, fexe ba dajale fi yoo xam ne ay borom xam-xam la ñu doon ak ay jànk di xasida euh, moo xam ci ñi féete ci wàllu kuréel la wala ci wàllu rajas ak ñi nga xam tudd neen sànq te ñu jóge ci mboolem Euh, Europe bi yëpp wala diaspora bi yëpp tew ci fi ngir seigne touba way ngir khassida yi inshallah taala. auzu billahi minash sheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim. sallallahu ala muhammadin wa radian xadimihi mbok juliti mbok mbokki taalibe yi asalaamaaleykum taala wabarakatuh barakatuhu amaan nañ mbégte toog ak sunu jëwriñ sunu xarit sunu mag di Serigne jagne euh ci bisub khassida bi nga xamni ñing ci 5e edition fi ci Paris mu lambo ñaari mbir ben mooy daanan ko def ci ndigalu sëriñ Amsa and ko daire euh, Jalbatul Maraaxib suñ borom dik ak ndogalam mm, Cheikh Sidi Mokhtar yàlla suñ borom yok leeram andil ñu sëñ muntaka mi mbek mi momit mu amaat ay kaddu yum ci duggal lolu yokkat ñu galvanisation bo kenn ku nek ci ñun yëg amna leneen lo yëg lo xamni ni euh, meneen mu yes di na ci sëñ bay lolu lo ci mën a àddoo asbillahi mina rajim bismillahi rahmaani rahim barke Seex Tuubaa jërëjëf si ablay waaw ah, waaw du gudd de waaye foofu nga daane la fi la dafa fekkoon ni saxaaru sëñ Tuubaa dafa taxaw ñu yéeg saxaaru sëñ Tuubaa gi mo doon digal fu ko sëñ bi jëmele duñ ci dara waye ñun ñoo nga wonte bir ñu dox ba Sëriñ Tuubaa yóbbu ñu fi ko gënal sëñ am sa nga jëkk a tudd dafa yëngatu ci xas day Sëriñ Tuubaa cëral ko ñëpp teg ci seen bët Seex Sëriñ Muxtaar nga ci teg daay yeesal ndigalu waajuram Seex Saaliwu yeesal ndigalu magam ju baax ja Seex Mat Lamin Baara ndax Saaliwu Seex Saaliwu moo ñu joxoon wakkaanaa xan jox ñu yaa raxmaan jox na ik fii nii jox ñu jox ñu jox ñu jox ñu wakkaanaa xan wa kaana qalaana nasrul mu'minin jox ni fastajaba lahu alaaji baara moom sëriñ Fallu lu ñëw jokkal ñu ci jàllbatul maraaxib ñu tey nab nabi bàyyi ngi ci Seex Seexal Muxtaar mu mu tagal ñu ci xas dëgg nga xamante ne si ni ku ca egg taxaw nga jàllbatul maraaxib moom moom jox ñu nuuru daarayni bañ jógee ci jàllbatul maraaxib dem ci Seex Seex Seex Sëriñ Muxtaar mu teg ci jàllbatul maraaxib ba pare daal di koy sampal boppam daal di wax ni sama samp ku koy jéem a simpi yaa koy dëgëral da tax mu wax loolu ñun di ci dara waaye daal ñun ñoo nga woon ci liggéey ba am ci ay jafe-jafe di ca dox ba sëriñ tubaay téyel ko boppam sampal ko boppam ñun ñu ñu ñu kon tëbuñu da wuñ ci xeeba wuñ ko kenn dañ koo sant yàlla miñ boole ci liggéey Serigne Touba bi ba ndig ba gërëmam fekkuñu si Cheikh Serigne Mokhtar nag defal nañu ba defal ñu lu kawe suñ jot ndax daf ñoo bàyyee Sëñ Muntaxa Sëñ Muntaxa bu ñëwee fi mu dal foofu moo baax ndax ci lam nekkan di dox moom la wéyal ñëpp xam nañ ni ñi ko jiitu ñëpp ay sang la leen jàppe waaye moom la daa ñëw moom daal nekk suñ jëwriñ ndax mooy jëwriñ jëwriñ ndax moom dafa wax ni man ci taalibe yi laa bëgg a bokk maa ngi yéen a ànd liggéey seen daal di ñii ba ci doomam yi mu jur sax mu ne ay sang la leen jàpp kon moom soññe na soññe boo xam si ñun amuñu fayam léegi li ci des mooy xet maa ngi foon naka jekk waaye xit ma tàmbali na ci beneen dox ndax taalibe bi sëñ Tuubaa bi jël na liggéey bi kon ñun njàmbarte gu ñu amoon wala wala wala wala cofeel gu ñu amoon ci de yi dañ ko war a yokk te xam ne alali Serigne Touba la ni muy sàmme jumaa ji dina sàmme murit yi ni lay sàmme xasida yi su ko defee looloo tax ba ñun yëgatuñ frontière yëgatuñ dëkk bu ci sori yëgatuñ ñi day taw yëgatuñ ñi day wàcce glace yëgatuñ ñi dafa tàgg yëgatuñ ñi dafa guddi yëgatuñ ñi dafa teel saa yu jóg jotee rek dañuy jóg jëm ci Serigne Touba léegi nag ñun loolu liñ ciy liñ ciy déggee mooy ñun ñoo ngi xaar ne suba war nañoo dem États-Unis jàng xasida war nañoo dem Japon jàng xasida ci barkeb Cheikhul Khadim kon ndigal li mooy sëñ Mountakha daal te yokku ni leen nag Touba Italie ak tubaa Paris yooyu yëpp baax na waaye yéen ñi nekk bitim yow rek boole naa la Cheikh baara fu mu teew sama jëmm teew na fa kon léegi dootuñu wax Touba Italie ñi ko jiite Touba Norvège bi ñuy dem di leen jàppale ba tey mu jéggi daya Touba Paris bi nga xam si léegi mbooloo mi xajatuñ fii ñëpp teg nañ ci seen bët waaye léegi dafa wax ne kon diaspora bi yëpp la Seex Muntaxa liggéeyal kon ñu jàpp ni fépp foo xam bisu xasida Sëñ Tuubaa nekkati na fa ñun la war ñoo ko war a def lépp ci ñun suñu mag la aju bu ko defee ñun ñoo bokk leneen ndap lu ñuy naane Sëñ Muntaxa moo ko téyel boppam te moo koy sàmm ñun duñ ci dara kon nañ puus rek Sëriñ Tuubaa jàllale mbiram ñun ñu si sag lii rek la euh, du amuñu baatin wilaay jomb nañ waaye sëñ ñoo bëgg Sëñ Tuubaa nag ah niñ bëgg suñu borom subhanahu wa taala sañ ñoo ñoo bëgg Serigne Touba niñ bëgg yonent bi alayhi salaam sañ ñoo ñoo bëgg jëwriñu Serigne Touba yi nga xam ñoo fi nekk Serigne Touba te ay borom lii rek la sëñ Ablaye liggéey baa ngi nii dañuy jéem dañ fa yor ay doom yor fi ay soxna yor fi yor yor yor yor yor yor ay ñeneen ñoo xam si fari ñu ijji te ñëpp ñu war leen a tett ci liggéey Serigne Touba bi xas day nag liñ ci mën a waat nga xam si ku tokk kaamel ñu war amuñu baatin bi laay jomb nañ waaye mën nañoo waat ni ku ci sax di nga am jàmm àdduna am jàmm àlaaxira asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal ndax liggéey sëñ Tuubaa bi fu mu mënti yóbbu fu mu mënti nekk yéen a ko fa yóbbu yéen dem fépp di ànd ak murit yi di laaj seen xalaat fu ngeen jàpp ne foofu la tendance bi jublu foofu la murit sëñ Tuubaa yi jublu ngeen dox jëm foofu te boolewu leen ci doole te raxul leen kenn kon digalu suñu borom ba ne ñëw fële ci sorat naxal ci jeexal ba muy wax ne adoo rabbaka bil hikmati wal maw'izati hasana wa jadilhum lati ahsan inna rabbaka huwa aalam bi man dalla an sabilihi wa huwa aalam bil muhtadin liggéeyal yàlla werante waru caa am liggéeyal yàlla te waru caa am liggéeyal yàlla xaste waru caa am liggéeyal yàlla bëggante rek la bëggante boobu ñu bëggante nag moo tax suñ Tuubaa bu baaxee ñu xasida mi lam ci jublu moo ko xam waaye daal xam nañu xasida bi boole na murit yi yi nekk ci Touba Europe yëpp ñu wax léegi Touba Italie wala Touba Paris dañuy wax Touba Europe yëpp sëñ Touba boole na murit mi ñuy yëkkateendoo di tegandoo ndax Italie tey ñaari téeméeri nit ak juróom fukki ñëw nañ fa teewe liggéey sëriñ Touba bi loolu ndam lu rëy la ci Seexul Xadim ndam lu rëy la ci nga xamante ne siini moo tax ñun ñu ñimee Seblaat moo tax ñu ñimee ba faale wuñ tubaab bi nekkul ne dañ ko faale wuñ ndax dañ koy jànne dafa fekk ne ñun dañoo jébbalu ci Sëñ Tuubaa bu ñu xasee jébbalu ci Sëñ Tuubaa lépp lu doxati ci suñu kanam dootuñu ko gis Sëñ Tuubaa rek la ñuy gis loolu rek la. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Ablaye. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbaye waaw euh, beneen laaj rek ci loolu nga daaneele daaw biñ ñëwee fii ci tolloon ñu ngi tolloon ci soixante quinze personnes quatre vingt ren ji lu toll ci deux cent personnes jóge nañ Lombardia. ndax amu waruñoo am kon beneen vision ci organisation bi ndax xam nañ ni fii moom xaj ñu fi gis nañ ni mu demee te Paris euh, dañuy dellu ci taarix xam ni mooy ñi nga xam ni ñoo jàmmarloo woon ak sëriñ bi bari na fi barab yoo xam ni la la cay jotale nit yaakaar naa ni du lu nu tëlee nun ndax kon desut tuuti ci wàllu structure organisation ñu yootu barab yooyu ba mën faa xajal jullit ñi rawatina ginnaaw euh, arm bii nga xam ne nun moom la yor muy xasida yi sëriñ bi ci la doon jàmmarloog tubaab yi ba defoon ko ngànnaayam nga xam ni ba ba nee maanaam dañ laa jiiñ ni da ngay jiyaat mu ni waaye bi xil mi wala way tuqaa ndax kon jo maanaam jotut arme boobu ñun ñu gën koo véhiculer ba mën a ndax euh, daje euh, bernde naam neex na daje jàng sunu biir ndaam neex na waaye yaakaar naa li ci gënal sëñ bi mooy fexe ba lonk googu nga xamante ni euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi koy njëkkanteeg iblis ngir dugal leen ci kéefër ñun ñu xëcc leen andi leen ci ci ci njulit. ah kay jërëjëf si Ablaye jërëjëf si Ablaye noonu la kay daaw juróom-ñaar fukki nit ak juróom ren ñu teg ñaari téeméeri nit ak juróom fukk Touba Lombardie rek lu ëpp téeméeri nit ak juróom fukk jóge nañ fa ah kay mën nañ ko war nañ koo def waaye dafa fekk ni. nit boo ànd ak moom di dox ci di yëngatu ci mit moo am kilifa am kilifa am jox ko ndigalam mënuñoo ñëw fuqar ci loolu ci loolu mënuñu koo jiitu dañuy topp ci ginnaawam rek ba sëriñ Tuubaa dab ñu sëriñ Tuubaa dab nañu ndax sëriñ Muntaxaa nee na ñi nekk ci bitim réew la waxal ñëpp la waxal kon léegi bi xas xasida yëpp benn la war a nekk ci Italie léegi nag loolu dañ koy waxtaane suñu biir bu ñu ko waxtaanee fii nii fii nii nga xam si ñii la seen maam yi jëleen Sëriñ Tuubaa fekk ko ci njabootam fekk ko ci aw xeetam fekk ko ci suufam fekk ko ci diineem ni ko du fi amee jël ko yóbbu fii dañ leen a war a won suñu bopp te bi siñ fii tëgg tëgg tëgg ci yeneen anam ah ñëpp xam nañ ko Sëriñ Tuubaa moo ko gën a yeyoo xasida yi moo ko gën a yeyoo murit yi nañ ko su boobaa murit Sëriñ Tuubaa yi ñoo koy fay dinañ egg bu yàlla waaye nag boo seetee xekma bi mooy Sëriñ Tuubaa mooy doxee noonu lu jot bu ñëwee da koy defen tey la ko denc leen sëñ dafa wax ci waa kaan xaqan ni askuruhu wa xaadilil abdaala kama kafanil xarba wal jidaala sëriñ waa li mu am lépp ci sant la ko amee ba tax nag sant kooku mu suñ borom fay lii mu fay werante da ko caa dindil ak lépp luy jëm mbi coo mbalaaj sëñ Tuubaa wax ne ashkuru waxaade le abdallah kama kafani xarbal jiran subhanahu mu daal di sabal yàlla subhanahu wal karim wal hamid mu daal di wax ne foofu lu ma la ma yoo xam ne nii foo ki ma gàntal moom foo kamit kooku ñàkk na ku taxaw ci suñu am mu ne tas tim man lii ala laay dara allazi bi kafani al ki taxaw jébbalu te ak njébbal yëkkati ko jubluwul dara lu koy lor te loolu mi nga amee ci barke nga xam si moom moo ko tegal bew ku loolu nak Serigne Touba ni jisa uman jalla al misal fay suñu borom mi nekk fële ci misal la mu ne lii xaada man wometal ma xaf ma xaba lo xam ci laquna xeyn xëyin am sal ci li Serigne Touba fay yàlla li Serigne suñu borom fay yàlla Serigne Touba mu ne amul misal muñ ko muñ ko maye fay legi xol li ci Serigne Touba tak mu alhamdullilah bi lin tay sant yàlla sant amul ab alam na abdullahi si Baye ñun fofu lañ tollu dañu toll rek ci sant suñu borom dañu toll ci sabal yàlla legi li ci Serigne Touba moko jox dinañ ci egg bu soobee yàlla bu jotee dinañ ko def ci mbaaxu sëriñ bi jërëjëf sëñ Ablaye yàlla la yàlla fay maa ngi guddal te ñu ngi may xaar jërë ngeen jëf yàlla leen ak sa jërëjëf muy sëñ Mbaye Diagne bisub xasida Touba Paris jaalibatu maraaxib fii ci euh, Aulnay-sous-le-Bois cinquième édition kon ñoo ngi àndoon ak ci xarala gi rek sëriñ Papa Gueye ak sëriñ Aline Boub Dias ak sëriñ cam Baye Fall euh, jërë ngeen jëf kon ci euh, benn kanam rek incha allah dinañ amal yeneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu